auditeurs yi du ñu benn ça fait deux. ça fait dañoo tooñ wàlliw. Euh, loolu di ah. ay kàddu yu sama yaay ngoone yëkkati toujours égal à elle-même ah Jimbori également it moom it lépp lu ñu indi rek day am am solo yéen a ngi koy bàyyi xel fii ci Feeling Dakar muy émission bu mag bi di topp kaa ah, diaspora bi it ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp. waaye di wax naan magi international moom jaaykatu téléphone mag la sama sœur la maa ngi koy wax naan ko nag Jimbori mi ngi yi di jooy téléphone loolu nag maa la ko ñaan muy addee Cheikhul Khadim nga defaral ma ko sama xarit bi di Jimbori mu am téléphone ko defee muy mën sax di mën di xool kaa yi di ma koy envoyé lépp lu ci mën di am rek ñu ngi lay jaajëfal sama yaay jooju nga xamante ni sama sœur la donc dañuy tëj foofu rek daal di wut beneen kaa boo xamante ni defe naa dañ leen cee bokk boole ci cas bi muy ku ci mal ni euh, euh, Abdoulaye Der ak Bamba ñoom dañ leen wax ni que dañu bokkoon ci ñu doon envoyé euh, Adji Sarr xaalis ak yi ni te ñoom it ay journaliste lañ waaye yooyu moom mu lëmbee nit ñi bari gaa yi seen xel di teey Jimbori boo ma doon ñëwal ci ñaar ñooñu liñ leen waxal noonu xam naa ne di nga ne aji jaaxal na la. ah aji saar kay ku dugg si mbiram wax naa la ko sànq. Mhm. yaa ngi dégg tax ci. c'est xam nga tey euh, journaliste. Mhm. dafa doon métier bu doy waar. Mhm. et puis la boo xam ni. Euh, soom su fekkente ni moom xam nga yërmande moom sénégalais yëpp ko am. léegi comme Sonko moom coalition de la jeunesse xaw ma moom lañ ko topp coalition de waa ñii nag coalition bi xanaa du war na leen topp ñoom. war na leen dal de. ñoom ku may aji saar envoyé xale yi xaalis ñuy jënd ay cocktail molotov ak yooyu. déedéet ñii déedéet kii dafa envoyé aji saar. Mhm. envoyé waaw naan da koy dimbale mhm. léegi comme Sonko da ko envoyé na ko da koy dimbali. Mhm. léegi ñii moom lan lañ leen di toppee ñoom. waxal rek. Mhm. am nga moo tax am na loo xam ne xanaa am loo ñun euh, si loi. Mhm. dafa am loo xam ne suñu aada da koo daax. d'accord wala loi la de yoon la mais suñu aada ñun ak suñu duggante ak sénégalais nu muy dundee dafa am loi boo xam ne boo ko indi fii ba suba du duñ ko mën a appliquer. Mhm. mooy lan mooy ay coalition de la jeunesse ak affaire yooyu boobu mun ta dox ci réew mii yaa ngi dégg nit ro chaque jour da ngay gis nga nit yor xale muy webe bi nga ne ko am cent ngi nii jëndal ko tàngal wala jëndal ko nangam nangam. ba pare xam nga ñoom ñaar tamit seen problème mooy gis nga ngasum ñaam bi. Mhm. boo demee bañ lay si yóori buum rek dépassé nga reen mhm. boo yemoon si gas ñaam kenn du la ci yóori buum ba ngay génn. Mhm. nga ñoom ñaar lëf lañ. vraiment <laughs> ah bu ñu demee kay ba ñii tudd leen si ay Gabriel di leen tudd yaa ngi dégg xam nga Adji Sarr sax lépp dem na ba nga xam ni lépp lu mu wax lu dul sama yaay jigéen la nit ñi dañuy jàpp ni du dëgg mais léegi bu aji saa dafa tëj lii Gabriel la ak keneen seen audio di di génn di wax yaa ngi dégg ñoom pour man waru ñu leen woon tudd ci yooyu. kon dafa ma ne si je me rappelle bien Ousmane Sonko amoon période bu wax ne leen ñoom ñii di wax ak yëpp di wax ñii nañuy dem ba seen audio bu bu génnee bu ñu mës a taxaw ne. Euh, waaw waaw waaw yàgg na ko wax. ba pare ne am na ñoo xam ne complice su ndaw si lañ. d'accord parce léegi moom ba mu koy wax booba kenn feeñut mais hmm. tey jii ñoom ñi ngi génn ndànk-ndànk man nag bu doon man la man ma res euh, affaire dossier beeg yooyu hmm. yii doonga bu ma ci jotee yaa ngi dégg hmm. xoola damay teg nee ba pare li ma foog justice mun na àtte si population est-ce que xam nga loolu wér na juge mën na mën moom rek non bu doyloo boppam mooy mu àtte si population mu xam ne population bi yëpp lii lañ d'accord yaa ngi dégg nga ah mu xam ne lii tamit bu ko indee baax na ci dëkk bi mu ànd ak moom te popul genn wàllu population bi yëpp xoola yaa ngi dégg vraiment dañoo ànd ak Sonko yaa ngi dégg ah musuñu ànd ak ak Adji Sarr parce que yow bu fekkee da ngaa àtte xeex am léegi population bi nga xam ne ñoom ñoo la fal doy loo la pour nga àtteel leen yaa ngi dégg fan nga leen féete foo leen féete waxa rek bu dee yaa ngi féete ci ñoom kay xeex du am dara du am xam nga mais daal aji saar daal yaa ngi dégg nekkoon na benn nit boo xam ni ay niti niti nit ñoo nekk ci ginnaawam parce que aji saar kese kese kese du dem. du dem ah. mais aji saar du woon aji saar kese kese ba pare aji saar problème mu aji saar du doo leen ci gaaw a génn parce que aji saar daf fi bàyyi ay règlement de compte. ba pare problème Adji Sarr ñi ci ëpp problème yéen waxagu leen ko te di ngeen ko waxi mooy ñi nga xam ne dañoo def seen bopp kan moo rey sama doom ñooñu tamit ñi ngi toog di xaar de waxa rek ñi kan moo rey parce que tamit xam nga nga am doom sonn si bay bëgg a dee dem marché ndikkee def lu nekk jàngal ko ñu xëy na ko tëf mu tëdd xam nga kooku tamit du gaaw a génn si bopp xam nga Adji Sarr moom ay waxam man dama ne woon sax ay waxam dootuma ci wax parce que man mus naa taxaw ak média bi ne leen aji saar di ngeen aji saar dingeen ci jot di ngeen dem ba jot si bi ma ko waxee fii Aliou laa ko waxoon gëmu ko ñu toog ba mu yàgg mu ñëw di wax ak yéen di téléphoné direct di ñëw aju saar li mu doon yéen a ko ko def d'accord sénégalais day fekk lu dul dara mu fexe ba def ko dara loolu la jël ko mhm. donc yaa ngi dégg ñëw ci côté bi ju Ousmane bi bi bi jubóor yi ñu waxee mm-hmm. ne Ousmane Sonko waxoon ne na aji dina génn am na yeneen complot yi nga xam ne moo nekk ci ginnaawam mm-hmm. loolu rek moo lay wan na ak leneen yi nga xam ne ay nit dañuy taxaw tey di ko saaga wala di ko xas mm-hmm. di wax Ousmane Sonko lu ñaaw loo xam ne dañuy toog même pas 24 heures wala balaa ñoo toll ci 7 jours juróom-ñaari fan yàlla weer leen musiba dal leen. gis nga Ousmane Sonko ni mu ko waxee noonu dama naan Ousmane Sonko euh, c'est c'est le c'est un visionnaire le phénomène de l'univers moom laa ko moom moom laa ko tuddee waaw c'est un euh, phénomène de l'univers dafa am loo xam ne yàlla suñu borom daf ko may vision yàlla ku mu may Bachira ngay gis yaakaar naa ne Ousmane Sonko nitu yàlla piir la dafa am loo xam ne nag ah, boo ko waxee ci télé wala nga wax ko ci média sax bu yàggee danañ la wax leneen mais usman Sonko nee naa la lépp lu mu wax ci Adji Sarr wala lépp loo xam ne lu ñëwagul lu muy wax la da koy gis parce que ngay toll koo xam ne da ngay gis tey ku tooñ Ousmane Sonko wala ku génn tey wax Ousmane Sonko dara wax bu ñaaw balaa moo am 24 heures am na jigéen gi daan taxaw di ko saaga noo gis nu mujjee di génn di yalwaan di ñaan njekk naan dañ may génnee. Mhm. ba mu taxaw wili pande Ousmane Sonko saaga yaayam la ko doomam taxaw saaga. Mhm. gis nañ ko ci Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi. Mhm. dafa saaga Ousmane Sonko taxaw wax ko lu ñaaw balaa moo am li ma la wax noonu yàgg juróom-ñaari fan doomam taxaw saaga ko bu mu taxawaatee wax ko ay wax yu ñaaw képp tax taxawaat na fii. nga gis am leneen ak yeneen yoo xam ne ay musiba yu yu wàcc ci kawam. gisaat koo xamante ne wax na ko wax ju bon après ñu daal koy tëj ci affaire mhm. koo xam ne daf koy def am na yoo xam ne yàlla moo leen bindee loolu ay nitu baatin lañu. Mhm. parce que nag dafa am lenn loo xam ne dafa nekk ci moom loo xam ne lu nit ñi xamul. Mhm. dafa nekk loo xam ne Ousmane Sonko tey liñ koy toppee bu ko nekkoon tey mu bàyyi. parce que réew mi rek ko ko ñor. ak ni mu jeexee. ni mu jeexee. tey ji lii yëpp ñu teg euh, barikaate nañ sa kër yuuxoo nañ la fu ne dem nga fa déchargé na la comme xale duñ koy waxee livré nañ la fii toroxal nañ la toj nañu sa oto humilier nañ la te loolu yépp yow sa jëmm ji taxoon ndax kan la ndax sénégalais yi ndax bu doon jëmmi boppam kase la kon yaakaar naa ne Ousmane ko bàyyi na mhm. waaye du nekk daj na ko ci réew mi ndax lan sénégalais yi la xool ba yërëm leen sénégalais la xool ñun ni ñuy dundee depuis 1960 ba tey mu am ci ñun yërmande ne damay taxawal sénégalais waaye seen Ousmane Sonko bu doon jëmmam ji bopp dong la mais heure bi mën naa démissionné. Mhm. moo tax dama lay wax ne lépp lu mu wax rek am na fu mu ko teg. Mhm. ndax nitu alxuraan dafa am loo xam ne yàlla suñu borom moo ko def ci moom. lu dul dëgg. Mhm. moo dul yàgg te nañu dem nee naa la aji ci conférence de presse lay mujjee aji waxagul de képp ku mu sa jaar sa kër képp ku mu sa jaar sa loxo aji dina génn ñaawoo ak que xam nga la moo tax lu dul dëgg du yàgg te gis nga wàllu nit ku baax yaakaar naa ne képp ku ko tooñ yàlla suñu borom da la yokk xoolal matabaam moo lay duma képp ku jaaroon def Ousmane Sonko loo xam ne war waroo ko def barki alxuraanul karim matabaam da lay duma yàlla moo ko defal noonu yàlla suñu yàlla suñu borom rek def ci réew mi jàmm rek mhm. loolu la ñuy ñaan loolu la ñuy ñaan te ñu yónni yàgg rek yàgg mi nga xam ne ne bawul dara yàgg bawul dara loolu la ñuy ñaan jàmm ak stabilité la ñuy